salaamaaleykum gars yi ni naa leen ak jàmm ci Sen Sport 221 gannaaw bi ñu tukkee ca Japon di wayal seen pré-saison ñoom waa mu Munich te Sadio Mané bokk ci groupe ba ñi nga xam ne waa Al Nassr taxul ñu bàyyi ki nga xamante ne mooy agent wu Sadio Mané sax wax nañu ne dinañ dem foofule ca Japon dal di dégg nga maam waxtaan ak ñi di waa Al Nassr su ko defee ñu war a mën a jublu ci transfert boobu ndax Sadio Mané kat yéenam ak pexe yi muy def yépp li muy nasaka nocc mooy fexe ba des ca na waaye dam Bayern moom li nga xamante ni moom la ñuy def yépp mooy fexe ba Sadio Mané dem léegi nag comme noonu la demee ki nga xamante mooy agent wu Sadio Mané dina waxtaan ak ak wàll waa Al Nassr ndax moom daf leen di fekki foofu la ca Japon ñoom waa Bayern su ko defee ñu war a mën a jublu ci transfert boobu la ndax kat ñii di waa Bayern seen yéene moom dafa leer Sadio Mané nag moom joxoon na green light ñii di waa Al Nassr fi mu nii li des mooy ñu dal di waxtaane ana yan euh, condition ci lay nekk bu fekkante ne dem na foofu maanaam xañ na lu ajo ci ay salaire ak contrat bi na muy demee loolu daal moom xañ na mooy li nga xam ne moom la agent a waxtaane ak ñoom kon mbir moomu teewaguñ ko ci suuf de Al Nassr ngi ci tànki Sadio Mané ba tey Sadio Mané doon naxante ngir bëgg a des ca Bayern waaye nee nañu mbir moom moom dina avancé ndax kii di agent am dina dem ca Japon su ko defee ñu dal di jubli ci loolu ki nga xamante ni nag mooy euh, Aliou balde Aliou Badara balde moom nag jamono bi mën nañu ko gis ca France ak Toulouse Toulouse daal jamono bi ñooy defi pexe ngir signé ki nga xam ne mooy Aliou Badara Baldé nekk ancien joueur bu jàmbaar nga xamante ne dañu ko jaayoon fële ci Hollande voilà euh, ñu dal koy jaayaat fële ci fële moom Aliou Baldé ñu ngi ko jaayoon ci Feyenoord Rotterdam waaye nag moom mën nañu wax ne defoon fa lu mat ñaari at ñu dal koy jaay fi mu nii nag ñëw ca France mooy liy xeeñ l'équipe moo biral xibaar boobu ni ki Toulouse ñoo ko bëgg signé kon dal koy indi foofule waaye ki nga xamante di Longoria ya. niki dembu na lolou daldi xew kon fimni ni man nañu wax ne mom ismaël Sarr jamono bi mo ngi ci pré-saison yi ak ñi di wa Olympique de Marseille kon match bu ñu jouer rek jamono bi man nañ ko ci gis ndax signé na contrat ba ba nopi ba ñu daldi koy présenter lu jëm ci walum euh, li nga xamanteni moy meilleur joueur fi ci Afrique wala bok ballon d'or africain comme niñ ko mëna xamé ki nga xamanteni moy Sadio Mané xam gene mbokk gagné won daw kiko wara wutu nak ci atum ren bi dinañu ko xam ci 11 décembre bi ñu jëgmal voilà 11 décembre ci lañuy amal li nga xamanteni moy cérémonie bobulé ci lañuy xam ana kan moy doon ballon léegi nag ñu gis ne xañ na Riyad Mahrez ñu bëri ñu ngi jàpp ne xañ na favori la ndax xam nga ne Manchester City ni daaw dañoo gagné Ligue des Champions gagné Première Ligue te moom moo ca woon def ci performance yu jéggi dayoo xëy na du ñàkk yeneen i tur yoo xam ne dinañu ko xam ne Sadio bi ñu dëkk mal ndax danañu amal nga xam mooy cérémonie bi foofu la ca Maroc ki nga xamante ni nag mooy Pedri euh, voilà Pedri Gonzalez dina amal euh, ñetti match yoo xamante ni ni bu ko joué voilà maanaam fi mu ne Pedri bu joué waate ñetti match ak ñi waa Barcelone Barcelone dañu am euh, dafa bokkoon ci li nga xamante ni kat mooy accord yi ñu amoon Las Palmas bi ñu jaay Pedri ñii waa Barcelone dafa am li nga xamante ni mooy ay accord yoo xam ne doxoon na seen diggante te nee nañu a na ci loge yooyu le mu ngi waaj a mat ndax fi ne Pedri bu fekkente ne joué waat na li nga xamante ne mooy ñetti mat bu ci nekk mu joué lu mu néew néew 45 minutes rek su ko defee Barcelone dina dal di génne lu toll ci 45 millions d'euros dal di koy jox ñii di waa Las Palmas loolu ci transfert bi la dal di aju ancien joueur Barcelone bi nga xamante ni nag mooy Malcom jamono bii moom ak digganteem ak Al Hilal daanaka sotti na daanaka sotti na daanaka signé kayit rek des moom mi nga xamante ni kat gis nañu ne voilà ñii di Bordeaux ñoo ko jënde woon ci Brésil ci 9,5 millions d'euros jaay ko Barcelone ci li nga xamante ni moo aju ci 41 millions d'euros Barcelone ñoom it dal di koy jaayaat Zenit Saint-Pétersbourg foofu la ca euh, Russie lu toll ci 40 millions d'euros encore jamono bii nag Zenit googu def fa ay at ñoom itam ñu nar ko jaay 60 millions d'euros kon moom mel na ni moom daanaka club yi mu jot a jaar yi bu ñu nekk am nga ci koppar 60 millions d'euros la ñu wax ne la war a jógee foofu la ca Zenit dem signé ca Al Hilal bu Kalidou Koulibaly nee nañu daanaka signé kayit rek moo des ci jamono bi fàttali leen Liverpool démb football na match su maanaam ci pré yi la ñu nekk ba tey moom ak benn club bu nekk ci euh, Allemagne voilà deuxième division la woon waaye nag ci match boobu dañoo dal am li nga xamante ne mooy match nul quatre bi partout ki la woon léegi nag ñu gis ne euh, Liverpool dafa match nul ci match boobu la nag ñu gis Salah ne mooy deux passes décisives ba noppi marqué benn bit waaye ki nga xamante ne mooy Darwin Nunez moom it ràññee ko lool marqué li nga xamante mooy ab doublé waaye itam def benn passe décisive kon loolu euh, match la woon boo xamante ndam amu ci waaye ay attaquant wu Liverpool ñom wone nañ ci seen bop ci li nga xamanteni moy mooy gogulé ki nga xamanteni nak moy Marc Bartra dafay wat ci Real Betis ya dal dina fay delu sax lañuy wax ndax mbir ma soti na wala mom mi nga xamanteni ni dafa demone fele ci Turki ati fa la nekkon ci club bi Trabzonspor wa delu ci wat na fofu la ci li nga xamanteni moy Real Betis signé ben atu contrat mom ancien joueuru FC Barcelone la mom Mark di Marc Bartra wa ki nga xamante ni nag mooy Chukwueze Chukwueze bi nga xamanteni mom moom joueuru Villarreal la won ci ati wessu mom nak dina signé fele nga xamanteni moy ci Milan passé ni démb voilà loolu tam mbir la moo xamante ni officiel na moom joueur international nigérien la moom euh, Samuel Chukwueze ni ki démb la daal di signé li nga xamante ne mooy contrat ba nee nañu ñu ngi euh, xamante ne add ons la maanaam bonus loolu nag mooy li nga xam ne moo xew signé na contrat bu ko yóbbu nee nañu ba Wilfred Zaha moom signé na taggal ca Galatasaray moom it ni démb voilà moom jógee ca Crystal xam ngeen moom contrat dafa jeexoon démb Pape Ousmane Sakho moom itam présenté nañu ko ni ki démb comme jour ñii di waa Quevilly euh, foofu nga xamante ni mooy ci euh, deuxième division bu France muy Ligue 2 ba voilà moom daal dina fay dégg nga maam signé waxoon nañ leen ko fi barki démb démb nag daal dañu koy présenté foofule moom sax moo génn daal di koy annoncé moom kii di Pape Ousmane Sakho l'international sénégalais.